mbokk yi saxoo di seetaan émission Kër Docteur ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm tey dañoo nar a waxtaanee li nga xam ne mooy sérum anti D lan mooy sérum anti D kan moo ko war a jël kañ lañ ko war a jël muy laaj yu bëri yu sampu ñu dalal ci tey monsieur du jàlloo nekk fële ci hôpital Fann monsieur Hamidou jàlloo ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu bàyyi ak waa Kër Docteur. waaw asalaamaaleykum maa leen di ziar bu di leen nuyu di leen jaajëfal. Eh, di sant bu baax a baax di leen baalu àq si koor gi aussi voilà man la du Diallo man ENDSS euh, concours ENDSS laa def CRF Kaolack laa génnee euh, présentement maa ngi liggéey hôpital Fann euh, service psychiatrie ba pare nekk étudiant à la faculté de médecine aussi département pharmacie niveau troisième année sas pour ma waxtaan ci si kër docteur si benn vaccin bu ñuy wax sérum anti-D bi nga xamante ni nii am na solo am na solo trop. monsieur Hamidou Diallo tey nar waxtaanee sérum anti-D lan mooy sérum anti-D. vaccin mooy lan mooy lan mooy biome mooy vise à prévenir la formation d'anticorps qui attaqueraient les globules rouges d'un bébé du registre positif au cours d'une grossesse ultérieure. si wasinee rek à l'instant T mun na ko jël mais mun nañ ko may fi ak soixante douze heures soixante douze heures la ko mën a jël. mais au delà de soixante douze heures na su ko jëlee du am benn effet mais quand même ban femme enceinte moom moo ko war a jël femme enceinte bi nga xamante ne ni dafa am risque négatif maanaam risque négatif soo ko déggee mooy xam nga su ñuy def bilan prénatal dañuy def euh, groupe sanguin groupe sanguin mooy GS et RH RH boobu nag foofu la ñuy basé wu RH boobu noonu moo registre groupe sanguin registre mën na nekk positif mën na nekk négatif mais nag sérum anti bi ñu ngi ko jagleel ñu nga xamante ni nii registre négatif lañ bokk mooy euh, O moins A moins euh, B moins AB moins. Euh, kañ la femme enceinte bi di jël sérum anti si nekkee enceinte bi dafa ëmb ba pare nekk registre négatif mais si kaw doom bu ëmb nekk registre positif. si nekkee registre positif xale bu mu ëmb nekk registre positif si lay soog a jëlee vaccin sérum anti-D si wasine mais nag si nekkee xale bu mu ëmb registre négatif la comme yaay ji jarul muy jël sérum anti est-ce que man nga ñëwal ci yan méthode lañ war a mën a jaar xam ne xale bu mu ëmb registre négatif la. nan lañ mën a xamee ne xale bu mu ëmb mii ba registre la ba registre la maanaam dañuy def foofu test de Coombs. test de Combs boobu nag moo ñuy firndeel ne xale bu mu ëmb registre positif la kon forcément si euh, juddoo rek dafa war a def vaccin sérum anti-T. yan conséquence la mën a indi bu fekkente ne euh, yaay ji nga xam ne am na registre négatif doom ji am registre positif waaye jëlul vaccin sérum anti-D. ko jëlul prochaine grossesse am maanaam euh, si wan naatee xale boobu mu ëmb. mun na am malformation voilà mun na am mal malformation boobu nag loolu la ñuy daw ba tax na dañ koy defal vaccin sérum ATD pour mu bañ a am malformation donc loolu lañ si jublu donc mais dafa xaw cher nag ça coûte euh, euh, soixante mil cinquante mille donc loolu la ba tax na looloo tax ñuy ñuy sensibiliser. ñu rôle mooy euh, sensibiliser la population sensibiliser les femmes enceintes à travers. maanaam jaarale ko si charge famille jaarale ko si si def consultation nataal bi nga xamante ni nii si defee eh, bilan nataal bu ñu defee groupe sanguin registre maanaam groupe sanguin bi si nekkee négatif la rek femme enceinte bi sage femme bi dèjà dafa war a di ko di ko prévenir ne ko war nga jël benn vaccin mais si kaw fekk doom ju mu ëmb positif la voilà war nga jël benn vaccin si une fois que nga accouché parce que vaccin bi lii mooy njëriñam lii ak lii ak lii ba pare ne ko aussi euh, wax ko prix bi ça tourne autour de cinquante mille voire soixante mille léegi nag euh, si nekkee loolu la pour mu teel ko fàggandiku parce que parfois ngis ñoo xamante ni nii pour ñu am soixante mille rek problème la mais loolu mooy njëriñu nga teel ko xaa wax pour mu koy dajale si une fois que mu accouché voilà donc di jaajëfal encore waa Kër Docteur jërëjëf jërëjëf euh, comme ni ngeen ko déggee mu nekk lu am solo ay leeral wala ay dolli ci commentaire yi pour jërë ngeen jëf xibaar yàlla na yàlla fëgg seen bopp